bismillaahi fiinin ak daala yàllaaw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 Basiru jàkkaarloog jumaa ji lépp la ngeen itteewoo si wàllub kaam yi ak mboolee mit jumtukaay yi ngir seen diine yemb na fii bismillaahi fii niin ak daala yàlla ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani irrahim laqin lisaani wa ahlulan minhu luqad wa jaalhu dhakiran wa shakiran abad bokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen ànd ñun ci seen site bii di Rafah TV mbégte la ñu am ak bànneex ñëwaat euh, ci seen jotaay yi nga xamante ni euh, aadawoo nañ di ko séq ak yéen tey jotaay bii di sunu gan am mbégte mu rëy rëy ñëw fii fekk si kenn ci borom xam-xam yi nga xamante ni dañ leen di déglu ay ndaw lañu ñoo xamante ni seen yitte yëpp ci wasaare xam-xam ak di laaye biir mbokki jullit yi mooy seen yitte tey ñu ñëw fii seet si ko muy soxna eh, Guèye di kenn ci jàngalekat yi nga xamante ni doomi dëkk bi lañu di bay seen waar waar wu am solo ci rajo yi ci télé yi ak ci fépp foo xamante ni des na fa jàllale rek xam-xam ña ngi ko fay jàllale Euh, soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal ci euh, émission bii di sunu gan ci Rafah TV ñu bàyyi la nga nuyu ak sunu euh, mbokki téléspectateur alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala ashrafi al anbiya wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin nabil amin wa ala alihi wa ashabihi al akramin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din wa ridwanullahi al akbar ala cheikhina wa xudwatina wa wasilatina ila rabbina ahmad ibni muhammad ibni habibillah Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Cheikh Abdoul ñu ngi lay delloo nuyoo ak ziyaar di am mbégte lool àndak ak ci jotaay bu tedd bi ci kër gi nga xam damay faral di wax ne moom turandoo ji moo tax mu neex ma lool moom rafaa yi moom tabaarkàlla euh, ñu ngi ziyaare rek mboolem koo xam ne yaa ngi koy topp nag foo mën a nekk Euh, foo koy mën a dégloo rek foo koy mën a seetaane ñu ngi lay ziar di la ndokkeel di ndokkeel waa kër gi ñëpp tamit nag di euh, dalal njaboot gi jàmm rek fii ci kër gi incha allahul karim jërëjëf euh, ci nuyoo bu sell bu matale boobu di njëkkee rek xam naa li ñu waroon a njëkkee mooy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Ahmadal Bachir suñu borom guddal aw fanam lool te wéral ko Euh, dañuy daal di dugg léegi ci waxtaan wi euh, tey tomb bi nga xamante ni fas nañu yéene waxtaanee ko ak yéen muy tomb bu am solo di tomb boo xamante ni daanaka mënees naa wax ne euh, bu jagee rek àdduna bi yëpp jàkk waaye bu échecgee rek mel na ni lu bëree bëri dana échec mooy makaarimal axlaaq makaarimal axlaaq importance bi nga xamante ni am na ko ak wàccuwaay yu mu war a am ci société bi loolu lañ bëgg a fas yéene jàngat li ñu ci waxtu may rek incha allahu ñu yóbbaloo ko Euh, Sayda xam naa bu ñu la dalalaatee ak jàmm makaarimul axlaax la ñuy waxtaanee lan mooy makaarimul axlaax soo ñu ko doon mën a leeral. wax nga lu am solo loo xam ne mënut a ñàkk ci dundu doomu aadama mun nga wax rek al axlaaxu sax mu jikko euh, xañ na nag buñ ko defaree ba segg ko ba tànn ko ba noppi lay doog nekk makaarimul axlaax waaye tur bi it bu dee moom nga bëgg directement ba tey euh, ñun moom lañ soxla sax ndax lislaam moom toujours makaarimul axlaax la bëgg. te foo jànge makaarimul axlaaq da nga ca xamaale euh, zamimaatul axlaaq da nga ko ci xamaale ndax jikko bu baax buñ gërëm bu ne rek ba mu dañ koy bañ ci lislaam euh, ginnaaw bu ñu delloo nuyuwaat mbokk yépp rek di wax ne jikko mooy lenn loo xam ne moom nit ki fu mu toll ci àdduna day yëg ne moom lii yëfi boppam la yu bari ko ràññee ko ko yeneen mbindeef yi ci des ndax xam nañ ne mbindeef yi suñu borom bind tabaaraka temps la yiñ ci mën a tudde ay ndundat mën nañ wax ni nit la ak mala jinne ak malaaka mm-hmm. eh, su fekkee malaaka la bokkul ci xaana boobu kenn du ko fa limaale mm-hmm. ndax moom yàlla da koo ber def leen ñu mënu la mooy dañuy jubal rek ñoom mënuñoo dëngal mm-hmm. ñoom mënuñu ko moo tax damay wax ne seenu ñàkk dëngal du seen ndam du seen ngóora yàlla leen ko waajalul bu dee mala suñ borom moo xool ci moom walla muy xaar ci moom muy jubal moom bu jubalee bu dëngalee boppam nit mi nga xam ne nag moom ak jinne yàlla def leen diggal ñu jubal ba noppi nag bàyyi yeeg seetaan yi mu man leen a dëngalloo ñooñu ñoo soxla jikko dëgg dëgg dëgg muy loo xam ne moo ràññale doomu aadama ak mala moom jikko ndax mala sax dana ami jikko waaye jikko yi muy amit ñaari jikko yuñ ko mooñaale la rek waaye du yu ñuy def ci moom makaarimul axlaax mi nga tudd nag bala koo nit am dafa fekk ne dañ koo suuxat ci moom dañ ko ci liggéey te liggéey ba moom la ñuy tuddee yar dañ koy yar waajalale ko ko day mel ni dañoo jëmbat garab jëmbët mi ak toppatoo bi moo tudd yar bus bu ñoree ba meññal doom ya muy meññal ñu war koo lekk ak ker ga muy maye ñu mën caa kerlu loolu la ñuy tudde makaarimul axlaax mu mel ne it fi xadiimi zaman amoon na fi maanaam naka jekk ba nit amee rek la am waaye dafa matut woon bari woon lu ci des loo xam ne nit munu ko woon ñàkk ngir mu nekk nit ki yàlla bëggoon mu mën a nekk xalifatullahi fil ard nit ki war a wuutu yàlla ci kaw suuf si te taxoon muy wax malaaka yi inni jaalim fil ardi xalifa nit kooku faaw mu am jikko yu tedd di ko doog a man su ko amul na wër ne mission boobu taxoon yàlla di ko fi indi moom daf koy esik ndax du ko mën a def loolu nag yar boobu ñuy def ci nit ba man ko koo may moo tax yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne innama bu'ithtu li ma makaarimal axlaaq mm-hmm. eh, gis nga liñ ma yónnee lépp lépp lépp weesuwul ma ñëw mottali si jikko yu rafet yi eh, dañ wax ne tudd gi tudd makaarim ci biir wax ji mooy wone ne kon amoon na fi mm-hmm. utammima ji mu wax mooy wane ne kon matut waaw mu amoon na fi du su fi amul woon du ko tudd mhm. day wax rek damaa ñu am lu ma leen di defaral si su ko defaree ba pare ñu ne lii moo tudd noonu su fekkonte ne mat na it du ne damaa ñëw di ko mottali si danaan dama ñëw yeesal ko wala mu ne dekkal ko mhm. waaye mottali ko la wax loolu mooy tax ñu xam ne kon amoon na fi ndaxam mhm. waaye it matul woon euh, kon loolu daal xam naa mën nañ wax ne mooy li ñuy mën a tudde makaarimul axlaaq muy taxa nit ki gën képp ko amul jikko jëm am euh, mooy tax mu gën ko euh, waaw kon daal loolu mooy makaarimul axlaax ci gàttal. dëgg yàlla ni nga ko tënkee wax nga ni euh, ndekete makaarimul axlaax ci doomu aadama ak ci jinne lañ koy xaare doonte ne nag yenn saa yi mu rëcc sax nekk ci bàyyi ma waaye xaaree wuñ ko ci ñoom waaye nit ak jinne mi nga xam ne ñoo yor responsabilité dundal suuf si waaye jagal ko ci ñoom la ñuy xaaree makaarimul axlaax wax nga itam tuuti ci importance bi nga xamante ni am na ko ci biir société bi euh, rawatina société boo xamante ni lislaam la ñuy la ñuy xaar ci ñoom mu doon loo xamante ni wax nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci wax moo wax ne dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi kon wax nga ci sa biir wax ne amoon na fi waaye dafa matul woon kon loolu moo ñu dugal ci ñaareelu laaj bi mooy lan mooy euh, différence su maanaam makaarimul axlaax ak pas-pas est-ce que makaar mi axlaax ak pas-pas am nañu relation bu leen boole wala relation euh, wala dañ leen mën a séparer muy pas-pas bi war a nekk ci ab jullit ndax nit ki daal mën naa nekk ab jullit dëgg-dëgg te du am makaarimul axlaaq pas-pas ni ko lislaam natte ni nii la bëgg mu mel ko ki amul makaarimul axlaaq mënu koo matal ndax xam nga pas-pas ay yëf la yu bari yuñ boole ne la yi ngay boole gëm leen sa pas-pas door a nekk pas-pasu lislaam waaw bu bu doon danga nga koo da nga koo gàttal tuddee ko juróom-benn yooyu ñuy faral di tudd rek muy ko xawaay di juróom-benn yooyu rek da nga gis ne benn bu ci ne na mu waree munoo ko ne defe te amoo makaarimul axlaax moo lay won ne kon makaarimul axlaax mooy ñëw ngir wéral pas-pas moo koy wéral ndax euh, bi yonent bi ne damaa ñëw ngir mottali makaarimul axlaax ki am pas-pas bokk ci diine ji kooku yonent bi defagut ci moom makaarimul axlaax yi muy soxla dëgg-dëgg waaye day fas pas-pas bi ba dugg ñu continuer di ko ko jàngal ci biir lislaam mu koy jëfe suñ ko fekkee ci moom ñu xam ne amoon na ko waaye jógewu ko woon ci diine da ko amoon par hasard diine ñëw suuxatal ko ko consolider ko ba mu dëgër ci moom moo tax sax am na benn philosophe day wax ne al axlaaqu min gayri diinin abathun ay jikko su ko nit amee te jógewu ko ci diine am folay doon waaw ndax souvent rek bu koy jëfandikoo ma ngi ciy xaar beneen intérêt te bu dee jikko ji lislaam bëgg nag euh, bu ko nit ki dee jëfandikoo ba muy jariñ keneen di royaat di dem ci ñeneen xaaru ci lu dul yàlla tabaaraka ko taala mm. loolu sax mooy doo ko tax muy tudd makaarimul axlaaq muy jëfi ku tedd lay doon mm-hmm. euh, ndax boo ko defee it yow xaaroo ci nit ki bu dee li ngay tuddee importance bi mm-hmm. jàpp naa ne importance su jikko yu rafet ci jullit loolu moom xaw ma da nga bëggoon a ber beneen tomb wala déet mhm. waaye comme nee nga tàmbali nañ ko ci bu njëkk bi ñu continuer ci mooy mooy tax nit ñi nit ñëpp sax boo ko boole woon société bi mooy tax société bi ci boppam jariñante bi yàlla bëggoon ñu def ko ci seen diggante mhm. ñu mën koo def ni mu ware mhm. ni mu ware moo tax boroom xam-xam yu bari wax ne société bu amatul ay jikko yu baax société boobu dafa mel nekkatu fi mel lu fi teewatul Ahmad Shawqi wax na ko nee na innamal um fa innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum zahabu nee na gis nga xeet yi communauté yi suñ leen dee tudd seeni jikko tax waaye bu dee seeni jikko dafa dem amatuñ ko mun nga wax ne ñoom it dem nañ amatuñu wax na beneen baytu boo xam ne mu gën a jotal boobu sax toujours may wax ne moom laa gën a ragal hmm. mu ne fa iza usiba al qawmu fi axlaaqihim fa aqim alayhim ma taman wa la nit ñi su fekkee ne seen crise bi leen dal crise des valeurs la nekkul crise su alal nekkul crise su wér-gi-yaram nekkul crise su xam-xam sax waaye crise su ay jikko lañ am kon mën nga leen a te jooy leen beneen crise bu ñu am rek mënees na koo faj waaye crise su ay jikko moom su xasee am communauté boobu baaxatul mais nag doomu aadama crise euh, crise xaalis koom a dëgg la moom moom la ñuy gën a jàmbat moom la ñuy gën a wutalit ay solution ndax euh, jamono yoo déggee ñuy coow waxi crise jamono bi crise mondiale crise su réew sàngam crise su béréb sàngam mm-hmm. ñoom buñ ko waxee rek matériel la ko tax a jóg fekk xamuñu ne sax léeg-léeg crise des valeurs mm-hmm. mooy indi crise su matériel mm-hmm. waa ndax suñ borom subhanahu wa taala lépp li mu wax rek looloo nekk ki ko gëm a fii ne ak ku ko gëmut waaye looloo nekk maanaam crise su alal yi ñuy jàmbat yàlla limaaleeloon na ko ca yëm ñu doon limal ne bu ñuy déraper yoonu njub rek mu duñu ko at won mm-hmm. muy zahëral fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat ay dinaas mm-hmm. mel ni dañ ko laaj waaye yàlla loolu loo ci jublu mu ne lu li yuziqahum ba'da alladi amilu mm-hmm. nee na yàqute gi day feeñ ci jéeri jéeg géej géeg fépp yàqute googu mooy alal yi fi nekkoon di yàqu mbay mi ci jéeri ji nangootul Euh, nit ñi ci jéeri ji wératuñu ba tax seeni alal di dem ci wérgu yaram lu bari mm. biir géej gi jën yi baaxatuñu mm. feebar yaa ngi ca ndox ma lu bëree nga ca ndox ma ci ay musiba mm. mel ni dañ ko ne waa loolu lu ko waral mu ne li nit ñi fàgg ci seeni loxo moo ko waral ñu ne ko léegi yow lu tax nga seetaan loolu mu ne dama leen bëgg a ñamal <laughs> lenn ci liñ doon def. kon day yi ñuy xeeb. duñ ko def muy problème. moo ñuy yóbbee crise matérielle yi nga xam ne mooy yóbbu suñu fit dañuy tef tef fu nañu jëm fa moo ñu koy yóbbee beneen aaya bi muy nurool itam mm-hmm. la nablu wannakum bi shay'in minal xawf wal juu' mm-hmm. wa naqsin minal amwaal wal anfus wa samaraat mm-hmm. ba egsi ca wa bashiri saabiriin loo ciy dégge mooy bu boobaa loolu lu muy metti metti ñi am ay valeurs yi jikko duñ ci am problème ndax ñooñu la yàlla ne nañ leen bégal wa bashiri saabiriin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla tegal leen ci lu neex a neex ulaayika alayhim salawaatu min rabbi mm-hmm. ulaayika humul muhtadun mm-hmm. wala muflihun bon kon loolu liñ ciy dégg rek mooy crise des crise des valeurs yi nga xam nit ñi dañ koy banaliser mm-hmm. luñ ko solo joxuñu ko yitte moom léeg-léeg mooy sabab crise matériaux yi ñuy jooy waaye léeg-léeg bu crise matériaux yi jiitoo ba pare it ñi am crise ñi amul crise des valeurs ñoo ciy gën a mucc que ñi nga xam da leen fekkoon seen i jikko bon mm-hmm. xam nga sëñ ab laxaat bu ak ñàkk amee mm-hmm. ñi yàlla may ñu gore mm-hmm. mën a muñ gëm yàlla am taqwa ñooñu ñàkk googu doo leen dégg mukkuñu saalit ci dana metti nag ci ñoom ni ñëpp waaye duñ ci saalit du leen tax mooy yàlla du leen tax te da dégg ñoo xam ne fii dañ naan kii def lii kenn yeddu ko ndax ñàkk gee metti li ko waral mooy kooku dañ ko wutalul woon ay valeurs yu nekk ci moom. amutoon makaarimul axlaax waaw. ku am makaarimul axlaax ñàkk du la tax a def lu bon. Mm-hmm. wolof day wax ne ñàkk du ma tax a ñenki. Mm-hmm. waaw loolu lool rek lay firi. kon daal nit dafa war a fexe ba moom mu am makaarimul axlaax dañoo war a fexe ba ñëpp am ko. bu loolu munta am it nañ fexe bi ñu ëpp ci société bi di ko am loolu danañu dimbali ba yeneen crise yi ñu jàmbat su ñëwee mën a woyof ci ñun daan naa dégg ci mel mag ñu wax naan buñ Euh, kon da koo amul woon ngor ni mu neexee ku ko am doo ko jaay kon euh, jërëjëf euh, soxna Sayda Gueye moom la ñu dalal ci émission sunu gan bi di rafetluwaat bu baax a baax waxtaan wi ni mu tegoo waaye itam ni mu ko dëppalee ak li nga xam ne moom la ñu dund surtout ñu gis ne wax nga léegi ci sa njëlbeenu wax ni dafay mel ni pas-pas ak jikko mënuñoo tàggali ko ndax julli mi nga xamante ni su ma jumul mooy ponk bi gën a am wàccuwaay ci diine Euh, suñu borom nee na euh, na ngeen na ngeen julli wala naka aaya ba waxee woon sax salaat inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli li muy màgg-màgg euh, day dindi ay jikko yu ñaaw di dugal ay jikko yu rafet naka noonu azaka noonu lay def aj màkka wata zawadu fa inna xayra zadi taqwa la ca waxoon ak dafay mel ni kon ponk yëpp rek wala diine saa su nekk dafay woote jëmale ci makaarimul axlaaq la day wax ne boo amee pas-pas bay nangoo def jaamu googu mm-hmm. jikko bii di makaarimul axlaaq moo la ciy dimbale mm-hmm. noonu nga ko tudde benn bu ne mu tuddal ko mm-hmm. waaye bu dee ci julli da nga dégg mu ne kim fekk mu am jikko yu bu pas-pasu diineem dikkee ba muy julli mhm. loolu daf koy jariñ ci julli gi mhm. wa aqimi salaata euh, defe naa wala boog wala boog euh, maa ngi fàttali waaye wa sabir alayha daa moo ci topp mhm. wasta'iinu bi sabri wax salaati defe naa lak ilaa ala xaashiin mu nga gis nga xusun boobu dalay amal njariñ te jikko la waaye tamit am na feneen foo xam ne wastabir alayha la mm. moo ci topp xaw ma laxat am saanihi seytaan mm. ñu ko na ba ba dellusiwaat ba léegi euh, ci laaj bi nga xamante ni moom lañ ciy toftal rek muy yàq yàq yi jikko ji jikko yi ci jamono gis nañu dafa tasaaroo lool sax léegi daanaka bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn euh, ñiñ ko dul foogee sax yenn saa yi dama yàlla jéggal daanaka dañ leen ci gisee yàq yàqu yi jikko yi Euh, loolu bëggoon ñoo xam lan moo koy waral ci jamono ji fii mu toll nii ndax jamono dafa dafa laaj forcement jikko yi dafa war a yàqu nit ñi ñàkk seen ngor nit ñi di ñàkk wax dëgg wala donte ne am na nag ñoo xamante ni ba léegi ñi ngi dese seen ngor mm-hmm. ñi ngi wax dëgg comme ni ko waxee ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi respecté seen i kàddu waaye léegi mu mel ni ki nit ñi fausser rendez-vous ñàkk wax dëgg euh, caaxaan ak ñàkk a jikkoo jikkoy diine dëgg-dëgg dafa mel ni dafa dafa dafay wàññeeku ci ñoom loolu bëggoon nañu xam dëgg-dëgg lan moo koy waral. nit ñi dañoo desee dégg seen diine xam nga di jàng diine nii bokkut dégg diine da gis koo xam ne bu doon njàngum bind ak maas nii rek ak yàgg fañ koy jànge mën nga ne daanaka defu ko waaye nag xam li diine li tax diine jóg dégg ko dëgg dëgg dégg ko loolu moo moo néew léegi si ndax. nit koo xam ne yaa ngay sonn ci laab ak julleeg woor ak joxe asaka boo amee alal yooyu yëpp yaa ngi ciy jéem di las lasi mm. mu di ay coone yaram yoo xam ne yaa ngi ciy dem ak dikk te jikko bii doo ci du la coûter benn énergie moom pour nga def ko mm. waaye munoo fexe ba sax ci yow mooy dangaa déggut sa diine ndax julli moomu nga tudd rek mm. lenn loolu yàlla wax ci julli kese rek waroon naa mën a defar jullit bi muy inna te tanha anil fahsha'i wal munkar Euh, julli ku koy def dëgg te defe ko ni ko yàlla bëgge doon te jafe na man munuma ko xam naa ne te ñu bari munuñu ko waaye ñi ci góorlu di ci sonn fegal na leen lu baree baree bari ba tax duñu def ay njaa ak njombikam ndax yàlla moom du wax muy des ginnaaw kon lu tax nit di julli ba génn ci buntu jàkka jël fa daal di jàmburam dem dañ ma koy laaj léeg-léeg bu ñuy wax yu mel noonu damay wax ne boobaa mooy julliwut julli na kàbbar rukkoo sujjóot waaye li li taxoon jullee jóg ak julli moom nekkut ci moom. saa itam ci jàkka ji. waaw te ñi koy jël dañoo julli si di ni ko sëñ Ahmad Ndiaye Nguerane di waxee. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla gën a dëgëral. Mm-hmm. ñi ko ñi doon julli si ñoo ko jël. Mm-hmm. loolu mooy turu julli lañ def waaye ak julli defuñu ko. xam nga sëñ Sambay radiyallahu anhu def koy wax lu bëri. day wax ne julli fiq ak julli tasawuf bokkuñ. donte lee jenn jëf ji la. julli fiq moom dañ lay xool taxaw bi jub naa ndax dégg nañ la nga tari jàpp nga say ooma siggiwaat nga sujjóot nga toog nga nàngam mm. boo ko defee boo paree fiq amatut lum lay wax mm. waaye ndax sa xol bi sellal nga ci yéene jaamu sa borom mm. ndax doyloo nga yàlla ba tax nga di ko joxeel jaamu gi ndax gëm nga ni autorité bi yàlla toll ci sa kaw ak lim la sañal lépp ndax teewlu nga ne fi nga toog bu ko neexoon boo yëkkatee lenn doo ko tollanti yooyu noonu moom la julli doon jariñ te loolu ku ko teewlu ku ne da nga moytu wax lu dul dëgg danga nga moytu sànq yi fi jàmbur muy ñàkk wóor mm-hmm. danga nga tu joxe rendez-vous di ko fausé mm-hmm. ndax dangay xalaat ne lii su ma ko defee yàlla ak ma tiim te dana ko lijjante man mm-hmm. xam nga yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ko Seydina Jibril laajee ma wal ihsaan dani ko woon an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraka loolu mooy sunu problème ixlaas boobu ihsaan moom mun ta def mooy julli tasawuf gi ma la wax mm-hmm. bi ngay julli ngay teewlu yàlla ba mel ne yaa ngi jàkkaarloo moom te xam ne mm-hmm. même su dee yow mënoo koo gis say bët ko mënta gis waaye moom mi ngi lay gis sëñ Tuubaa noonu lañu ko jàngale in lam ay qad ra'aytumuhu fa huwa yaral kulla faraaqibuhu mm-hmm. su dee yéen gisu leen ko it moom na ngeen xam mi ngi gis lépp kon dee leen ko fuglu waaye bu dee ñun amatuñ fuglu kenn fuglootul yàlla ci lenn mm-hmm. lu la neex nga def xam nga wax ak yow fii ci sama kër mm-hmm. ay wax nga jóg daal di dem ñibbi ma daal di jàpp ne nekkatu fi kon lu ma neex mën naa koo soppandiku ci li ma wax ak yow mm-hmm. mooy ba fàtte naa ne bi may wax ak yow yàllaa ngi fi te ba tey yàllaa ngi des ak man su ma bàyyi woon loolu xel li ma wax ak yow ba tënk ko ba nga dem danaa ko jéem a sàmm buy dañ ci yàlla lay jóge ni ko sunu sunu jàmbaar jooju woon du may dañ ko ne woon ah yéeme nga di mbàkke koo xam ne yow loo wax def ko mm-hmm. mu ne loo wax def ko de yàlla rek a ko man mm-hmm. waaye lépp lu ma wax nar naa ko mm-hmm. buy dañ ci yàlla lay jóge ñun ñii bis bi seen magum jëmm mu bi di wax lum narul loolu sax eh, soxna si xam naa lu la ñu dugal suñu laaj bi ndax eh, buñ dee wax yàqu-yàqu yi jikko yi waaw day ko wallaay maanaam wax safaan. Mhm. daanaka defatuñ ko muy dara. waay daal magum jëmm. Mhm. daal ne maa ko waxoon waxeet. génn ca. Mhm. maanaam dëggal amee doole ci ab jullit. suñ ko demee ba banaliser ko suufantal ko ba daanaka. defatuñ ko muy dara. wallaay wallaay loolu dëgg dëgg dayob yàqu. yàqu xam nga xam nga waxi sëñ Cheikh jooju dañ ci dégg ni mën naa wax dara sax dem bay jëmmi jamono mu dañ am lu ko dindi. waaye boobaa mag ñi loolu masaan am su ma nee mag ñi nag. gone gu bees gi doxe doxin woowa it ci laa ko boole mag mu yàgg ma meloon ni tey melit waxuma ko mm. maa ngi jub la wax rek mag ma juboon ak gone gi jub tey mm. eh, ñoom buñ ma saan wax yàlla dogal muy dañ mm. maanaam ah Cheikh Abdoulaye nañu ànd def nangam da nga ca am jot nga ne waaw ñu ne acca nañ ko def suy dañ danañ mën a teg ki sa loxo bi li ko dindi nga mën a waat ni yàllaa ko dogal waaye ñoom sabab lu wuñ ko mu dañ te it bañ koy xamuñu woon ne lii dana xew léegi nag ñun yooyu defanduñ ko muy dara ñun jamono ji may taxaw di waxanteeg yow. Mhm. léeg-léeg nga def ko wax ak nit keneen fekke na ko ba dem nga ne waaye sa waaye li nga ko wax nag foo ko teg te xam ne bis booba nangam. Mhm. mu ne ah gars yi de léegi neel waaw rek. Ah. lu tax loolu magum jëm. lu tax mun naa neel waaw dem na ba ci suñu pas-pas yi suñu digg ak sëñ bi. Mhm. toujours ma wax ko damay wax ne dañuy kafe ay baat. te xamuñu ne sawtu ci arab dafa am solo. boo ko génnee li mu dafa am solo. da gis fi koo xam ne danaan. Euh, wax baat boo xam ne wax dëgg yàlla buñ dee dañoo dellu rekk ci xam-xam sirk la mu génnee ko ci kàddoom wax ko bokkaale yàlla la te boo nekkoon li ngeen di wax nangam bokkaale ñaari tontu dong la am yum la benn bi mooy yow da ngaa gëmut sëñ bi mhm. wa illaa boog mu ne la man bi ma koy wax jubluwuma ci loolu lu tax doo wax li nga jublu <laughs> xanaa jël li nga jubluwut di ko wax te ñun dañ koy def toujours mhm. dañ koy def Euh, yu mel noonu moom sëñ bi. Mm-hmm. mooy moo loolu sax moo tax ñuy wax jikko yu yàqu. Mm-hmm. jikko yu yàqu mooy la daan baax. bu njëkk nit ñi soppi ko léegi muy bon. Mm-hmm. moo tax it sunu borom lam ñu waxoon dikk na moom woon nañu. inna allaha la yuxayiru ma bi xaw mi qawmin xatta yuxayiru ma bi am anfusihim ñoo ngi nii ñun soppi nañ lépp la fi newoon ci lu baax. yàlla soppi aw doxalinam ak ñun. bés bu set ñoo ngi jooy ak a jàmbat lu dul jeex te dara waralu ko lu du suñu suñu doxinu bopp rek wallaay wallaay moom rek ko waral mm. ba léegi am na jeneen jikko joo xamante ni itam euh, nuñ ko ñàkk bañ a waxtaane tamit lu tumuranke lool ci société bi muy kersa te dégg naa euh, ñuy wax naan iza lam tastahi fasna ma shi'ta soo amul kersa bu yeboo nga def lu la neex mm. euh, jikko jooju dafa mel ne tumuranke na lool sax léegi rawatina ci réseaux sociaux yi wanante yu bon yi ak uh, ñi ñi uh, sum uh, xawi suturaay jàmbur yi di teg ay ay yu dul naka su dul doon ci deri jàmbur yi yooyu day dafa mel ni itam war naa mën a bokk ci yi ñu war a waxtaanee gën koo jooyante ci société bi. yonent bi Muhammad sallallahu alayhi romb na benn saxaabi yi mu yedd mbokkam nan ko sa kersa gi dafa ëpp yow da am kersa ba doo wax li nga war wax mu ne ko bàyyi ko bu ko yàq. bu ko yàq bàyyi ko ndax sa daf koy defar yow nga di ko ko bàyyiloo waxaat na loolu nga wax noonu nee na ci waxi yonent yu njëkkee la jóge woon mm. min kalaami nubuwatil ula idaa lam tastahi fasna ma sita fekkee amatoo looy rus man kay kii wax ma léeg ngay wax ak nit bu ne maa mm-hmm. nga ne ko ah kon nag de amatuma lu may wax ak mag moom bu ne maatay tey ba ko ta dem kooku jërul ngay taxaw di wax ak moom mm-hmm. loolu la demee nit bu fekkee dem na ba amatul lu muy rus rusoo wax lu ñaaw rusoo def lu ñaaw rusoo wane lu ñaaw lu keneen def te nga dégg yàlla waxoon ne yàlla bëggul kuy siiwal lu ñaaw waaye laa yuhibbullahu jahra bi suu'i minal qawl yàlla waxoon na ko minal xawlu jooju noonu dafa am solo ci jamono ji ñu toll mm-hmm. ndax ku bañ jahra bi suu'i ci wax siiwal lu ñaaw mm-hmm. kon jëf mët ta wax te yàlla ci wax sax la wax ci alquran ne ma ngay bañ ku ca siiwal lu ñaaw réseaux sociaux yi nga tudd keneen wax lu ñaaw nga siiwal ko ci lañ ci doon jooy bu njëkk mhm. di jël ay audio di envoyé keneen déggal diw li mu wax déglul diw li wax foofu léegi nag moom dañ koy sos far maanaam nga xam ne dootoo jëlati waxi sëñ Abdou Lahad Ndiaye di ko jàllale feneen mhm. waaye da ngay toog ne sëñ Abdou Lahad Ndiaye wax na nangam wala def na nangam waaw yooyu yëpp te fekk fii taxoon mu koy waxe ak fu nga koy dugal bokkuñu xam nga loolu nag moom sëñ Abdou Lahad man damay wax ne dootuma jaaxal li tax duma jaaxal mu ndegam mag mu toll ne sëñ Touba. mooy bind. nit ñi jàng arab ne fi. dégg naxwu xam sarfu. gis sañ bi bindu bayti wax ci lii ñëpp xam ne lii la ci wax. nga dindi ko ba mu set ci tegal ko fi leneen ne loolu la sëñ bi te di ko waxtaane ci public bi ñëpp di ko dégg. ñi xamul di ko yóbbaale. te amoo looy rus. kon boo sosalee am soxna gee du dara wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa bi sosal ko ci mbindam yi di bés bu set ñu sosal ko wu ne weng mu bindu bayt ñaan ci yàlla toroxlu tegginu suñ borom tegginu yow mësta gis mm-hmm. nit ñëw ne sëñ bi nee na nguuru yàlla gi dama ci soppax ni ko nu ma ko bëggee sëñ bi nee na yëfi yàlla yi nii sëñ bi nee na nangam ji maa ko moom di ko waxe xeetu waxin woo xam ne day mel ni kii dafa effacé yàlla teg ko nële jël sëñ bi teg place mm-hmm. loolu ñàkk kersa fa la mm-hmm. te nit bu amul kersa ci yàlla amu ko ci yonent bi sallallahu alayhi amu ko ci sëriñ Touba keneen ku bëgg ñu am ko ci yow nag yaa de wax dëgg yàlla yaa tooñ. Mm-hmm. <laughs> waaw ku ko bëgg yaa yàlla ci boppam mm-hmm. sax kay ñu xañ ko ko yàlla. Mm-hmm. wallaay xam nga ne nguuram gi moos wax dëgg yàlla nga xëy xëy mel ni ku ko nar a ci ay loxoom. loolu ñàkk kersa fa la woon ko jikko joo war nañ ko waxtaanewaat ci pinc mi delloo si waat ko xam naa du yomb ñu delloo si waat ko waaye ñu fàttali ko ndaw ñi muy yërmande rawatina ci jamono ji ñu toll waaw dafa mel ni léegi yërmande dafa mel ni dafay bëgg far ci kaw suuf si ngir delloo siwaat ko ak waxtaane ko dana doon lu am solo ci societé bi rawatina société boo xamante ni daanaka ñi ci ëpp way ñàkk lañu ñi ci ëpp ay ndaw lañu ñi ci ëpp ay jigéen lañu ñu war leen a yërëm te kenn ku ci nekk rek yonent bi am lu mu wax ci moom ngir yërmande léegi bu ñu demee ba yërmande amatut da ngay gis sax ku am doole ñëw tooñ ku ñàkk wala ku amul doole ba noppi dem yóbbu ko ca fay mbaxane doonee benn ba pare wocc ko fa nag yay ko ñàkk am yërmande ci njiit yi rawatina ñi jiitu féete féete kaw te yonent bi am na yu bëree bëri yu mu wax ci yërmande. loolu ñu waaw lu am solo nga wax yër jikko la boo xam ne yàlla da ko wàccee dugal ko ci biir jaam ne pour ngeen di yërëmante. moo tax sax yonent bi salaas ba man laa yarxamu laa yurxam. Mm-hmm. kudd lu yërëm mais deesu la yërëm loolu sax. ñenn ñi dañuy wax ne yàlla lay wax ak jaam ñi waaye mën na des ci biir jaam ñi sax maanaam Cheikh Abdou Lahad su dee sama téeméer bii ma am gis naa ko xam ne ñaar fukki dërëm la ni ngeeju tam tëkku te man attanu ma cee yëkkati fukki dërëm jox ko ko loolu li muy jur mooy que junni téem ma ma moom it du àttana yëkkati ñaar fukki dërëm jox ma ko euh, loolu am na benn benn version la beneen bi ci des mooy ñu féete kaw ñàkk xam dëgg dëgg dëggi kàttanug yàlla wala ñàkk ko ko nangul ba xamuñu ne ñoom li ñu yor suñ borom a leen ko jox te bu ko neexoon ak suba doog mën na koo xëy nangu ko moo tax ñu téye ko euh, def ixtikaar ko téye ko ci seen bopp duñ ci dimbali ñi nga xam ne ñoom lañ tane xanaa di liggéey ak ñoom ci façon liggéeyin boo xam ne dafa dem ba fa ñàkk ma yërmande yam tàmbalee fa mm-hmm. ndax koo xam ne dafa néew doole yow ngay borom alal yàlla dogal nga xamanteeg moom ti sa bëgg-bëgg yëpp mooy na ñëw di la liggéeyal nga di ko fay waaye ci biir liggéeyal beeg fay boobu loo ci soxor xeeb hmm. loo ci dangal sa loxo xeeb loo ko ci ñàkk dimbale rek xeeb ko hmm. te bu la amee loon desu waxtu nga ne ko bu ëllëgee danga ma koy fay hmm. bu la doon liggéeyal ci matériel yàqal la ca tuuti nga ne ko danga ma koy fay léeg-léeg ma romb ñi yor waruwaay yi ci mbedd mi borom waruwaay yu néew doole yi euh, yàlla dogal embouteillage bi xataay bi tax ñu riisoog koo xam ne dafa yor daamar ju mag mu taxaw fee jël ay loxoom dugal ci poosam ne daf koy defarlu mhm. walaay sama xol day jeex ndax loolu mooy ñàkk sant yàlla mhm. boo santoon yàlla même bu la wóoroon ne daa réew comme ni ko ñenn ñi waxee mhm. ñoo ndax ñi dañoo réew bu la wóoroon ne daa réew bu la wóoroon ne moo ko tey bu la wóoroon ne moo la bëgg a yàqal santal yàlla ma la may lu ñuy yàq may la loo ko mën a defare nga dem defari ko te bakoog yàlla moom rawatina nag bu la wóoroon ne jubluwu ko sax njuumtee tax mu yàqal la loolu yëpp day dugg ci ñàkk yërmande gi nga wax bu dee jigéen ñi la day jigéen ñoo xam ne ñoom seen borom kër mi leen yàlla boole lañ dul yërëm mm. te jigéen mën naa yërëm borom këram war na koo yërëm itam yërëm ko mooy li muy am nga di ko ko defaral di ko ko defal fu war a dem te bañ koo bàyyee def ci caa bañ koo def ci caaxaan mm-hmm. ak di ko fooyee te jigéen ñu bari loolu dañoo jàpp ne rek mooy ak dund seen soxla lañ xam waaye xamuñu yow li nga war a amee ëllëg mbaa li nga war a préparer bu dee xale yu ndaw ndawaan yi ñoom eh, mag ñi buñ leen yërëmoon yenn situation yu metti yi ñu dund duñ ko dund waaw bëri na lu ñuy jàmbat naan xale yi ci mbedd meek xale yi nekk ci kër yi nga xam dañ fa yare xale te seen condition yi ñuy dundee baaxut ak yooyu yëpp ñu yàlla may doole ñoom ñoo yërëmut ñi nga xam ne amuñu doole. Mm. suñ leen yërëmoon amaana situation yi du mel noonu waaye ñàkk yërmande waaye yonent bi sallallahu alayhi ne woon ne day irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Mm. yërëm leen ñi nekk ci suuf ñi nekk ci kaw danañ leen yërëm euh, mën nañ wax yàlla mi ci kaw waaye yàlla mën nga ko bañ a dëkkale ci kaw it waaye nee rek kilo féete suuf yërëm ko kilo tiim dana la yërëm. jërëjëf xam naa ne waxtaan wi waroon naa gën a yaatu sax lool ginnaaw ba ñu la sante bu baax di la jaajëfal waaye mënuñu tëj waxtaan wi te indiwuñu benn xikma boo xamante ni bëgg nañu mm. euh, ci sa xikma yi nga xam ne yaa ngi koy faral di def mu am solo lool mm. xikma boobu di wax naan ajaban li haza zaman mm. tahzan wala tajid man yusika tafrahu wala tajid man yuhannika tabki wala tajid man yamsax dam aynik kin ixlat fa sawfa tajidul kulla yanzuru ilayk wallahi wallahi jamono ji moom loolu dafee bari da gis koo xam day nekk ci jafe-jafe sonn lool ci lu mu dunde lu mu sol fu mu dëkk njabootam mu leen di jàngale nu leen di ñi ko xam bari nañ lool mën na daan sax ay mbokkam mm-hmm. mënoon koo dimbali duñ ko dimbali duñ ko defal itam sax seral noonu ngay gise ci wet gi koo xam ne eh, mën na am sax daa feebar waaye kenn du ñëw jéem koo faj dañ koy seetaan ba mu faatu di ko saraxal noonu ngay gisee itam ci wet gi koo xam ne am na lu ko metti ba muy jooy mm-hmm. waaye nit ñi duñ ñëw sax jéem a lijjanti gëstu ba xam moom lan lay jooy dañ koy bàyyi bu jooyee ba ranqooñam sonn noppi mm-hmm. mu des di misère di misère ba faatu ñëw faatu ñu naan moom di nekkoon na fi xamuñu lii xam nañ ne kenn du faatu te diggam yegg siw mm-hmm. waaye léeg-léeg nag jaaxle naqari dundum nit yooyu yëpp nit ñi dañuy romb duñ ko faale di dund seen dund maanaam daal bopp sa bopp lañ bëgg a dund mm. kenn ku ne defe nga ne yow ni nga nekk ki ci nekkut te gën laa suufe daa yaafus mm-hmm. ki ci nekk tiim la ca kaw kooku moom dafa jàmbaare yow ngay góorgóorlu pour dab ko mm. maanaam daal toujours ki la tiim nga yittewoo pour noo ko dabe mm. waaye ki ne ci saroon moom pour yow dafa yaafus lu ko tee mel ne moroomam lu ko tee am liñ am te moo ne day mën na am moo gën nangoo yàlla mi seddale moo ko séddee noonu waaye ak loolu yëpp lu ñuy maanu baandu ci yow di la romb nag gauche ak droite faalewuñ la hmm. bés buñ déggoon ne def nga benn erreur bu hmm. soobee yàlla danga doyal beneen ma wax na lu ñu demee dafa ne boo yoroon feuille bu yaatu bu weex tàll hmm. jël benn tomb encre bu ñuul def ko ci digg bi soo jubee nit ñi rek tàllal ko nii nit ñi tomb bu ñuul bi la njëkk a wax <laughs> maanaam wax sikk moo leen gënal wax ay ngëneel waaw wax sikk moo leen gënal wax ay ngëneel benn jàngalekat sa moroom oustaz. te mm-hmm. ci doon jox tamrin ay élèves bis ci xisaab. Mm-hmm. Euh, daa di ñëw rek bind isnaan saa euh, tisan yi saa yu saban mm-hmm. doog kon ne ci des yëpp normal xam isnaan saa yi tisan yi moom du saban léegi nee naka la pare rek ne élève aywa unzuru ila sabura saxihu ñu xool ñoom ñu maa ngi juum ñu xool tableau bi mu ne corriger leen ko wala kii balaa jot a wax corriger leen élèves yu bëri taal oustaz oustaz dangaa juum dangaa juum bi san saay tisan du sapan <laughs> mu ne waaye yi ci des nag ñu ne ceel mu naan ne mu ne gis ngeen dama leen doon jox dars gis ngeen ne man fukki amaliya laa fi teg mm-hmm. fukki opération mm-hmm. benn bi ci kaw kese moo ci baaxul juróom-ñeent yëpp baax nañ yéen kenn tàllal ni ma oustaz bii ni ko bindee ni mu rafete waaye da ngeen ne ma rek benn bii nga bind xoolal ni mooy àdduna maanaam sikk lañuy ñuy xool waaye xooluñu lu baax moom waaw jërëjëf euh, Seyda Soxna Gueye ñu ngi lay jëfalaat bu baax a baax xam naa ne liñ ñu cëraloon ci waxtu mooy bëgg a jeex waaye waxtaan wi waroon naa gën a yaatu incha allahu taala xam naa ñu jox la kàddu gu mujj goo xamante ni ci ngay tëjee jotaay bi waaw xanaa sant di lay doon sant rek gërëm ñaan suñ borom subhaanahu wa taala boole ñu dimbali leen ñoo kàttanal ba li ñu jàpp ne ci liggéeyu diine ji la bokk bañ ne ci di nab na bi muy jottali woote bi yonent bi sallallahu alayhi te mu digaloon ñu ko nag mel ni ku ñu ko doon ñaan mel ni ku ko doon diisu ndeysaan wax ko ci waxin bu yërëmtalu nag xëy yendoo jottali ca bisu arafaat boobee di yendu di jottali di jottali ba timis jot mu ne ala hal ndax du jottali naa saxaaba yi ridwanullahi alayhim ne ko wallahi ballaxte yaa rasulallah mu ne fal yuballighi shaahidu minkumul ghaiba mu ne ndax jottaliwu ma saxaaba yi ne ko ah kay mu ne kon nag ku fekke ci yéen na ko jottali ñu ko fekkewul dama koy firee toujours ne ku ko xam ci na ko jottali ñi ko xamul waaw ndax euh, amaana koo xam mu ngi ciw dëng te ndeke daa xamul dëgg la sax danañ ne la jamono ji ko xamul moo tey waaye demewul noonu am na koo xam ne xamut te daa xamut wallaahi alazim mm-hmm. man xam naa ci dara léeg-léeg ma dajeek koo xam ne bu ñu waxtaanee damay xam ne kii daa umpale woon carrément waaye kenn gënu koo bëgg lu baax mm-hmm. te su boobaa yow mi fexe ba mu xam li baax ba ne ca lu mu ci lu baax rek nga am ci sa tuyaaba ak daallu alal xayri ka faa'ilihi kon yor jumtuwaay yi di jotli te yàlla dimbali leen ba jottaliwu leen am fo ak i xanaa di jottali diine ak luy defar société bi yàlla suñu borom gën leen a jàppale gën leen a dimbali gën leen a dëgëral ba bu ngeen ci amul àddina ji nit ñi wuti ci yeneen yi ñuy njëkkante it kon ngeen am ci seen tedd nga am ci seen alaaxira tedd ngay àdduna ji kenn du leen ko mën a xañ nit yoonu yàlla ku ci ne di dox faw yàlla di la teral même boo dencuti da ngay tedd waaye ëllëg moom wér na ne yow da ngay am li ngay ut incha allahu karim di sant ñëpp di gërëm di la santaat ba fi am lahat di sant sëñ Moutala Fall sama rakki bopp ji maam alelo di jaajëfal mboolem ñiy topp rek euh, Rafah TV jërëjëf. Sayda Soxna Gueye la woon ak ñun ci suñu émission bii di suñu gan tey ñu doon waxtaanee importance bi nga xamante ni jikko yu rafet yi am nañu ko. waaye ñàkk ko am itam ci société bi fan lay jëmee ab société dégg ngeen ko ni mu ko waxee leeral na ci lu bëree bëri xëy na temps bi moo xat lool waaye amoon nañ yéen gën a duggaat bu baax a baax ci jikko yi gën a soññewaat ndax ni mu ko waxee rek loolu mooy métier am mooy liggéeyam foo ko séenee muy dox rek moom mi ci yaatal njàngaleem Yonent bi yaatal njàngalem Sëriñ Tuubaa ci la ci la nekk ca rajo ba ca tele ba Al Mouridiyyah ñi ngi koy ziar bu baax baax sëñ Atou Diagne di ko ziare mbooleem mbokki jullit yëpp rek mbooleem kuréelu xisbu tarxee bi yëpp rek ngeen koy jaare bu baax baax di ñaan suñu borom dolli ko de mbokk yi lii la woon ci euh, émission sunu gan Mourtada Fall alelo ñoo nekkoon ci technique bi seen mbokk Abdou laxaat Ndiaye nekkoon ci présentation bi ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillaahi fiinin ak daara yàlla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 Bassirou jàkkaarloog jumaa ji lépp la ngeen itteewoo si wàllub kaam yi ak mbooleem it jumtukaay yi ngir seen diine yemb na fii bismillahi fii nii ak daara yàlla